Soir International salaamaaleykum daleen ak jàmm si euh, tënku xibaar yi euh, mardi 28 novembre 2023 dañ koy commencer rek par le collectif euh, des associations de demandeurs de visa bi nga xamante ne adressé nañu adressé nañu benn lettre ki nga xamante ne mooy mooy les ambassades les ambassades nee na pour ñu gën jël en compte seen problème parce que ñoom nee na dañoo rencontre ay difficultés. par rapport ak bu ñu demee pour ñaani visa donc ñun adressé benn lettre pour vraiment wax conditions yi nga xamante ñoom la ñuy dund ñu ñëw si euh, examen de l' agriculture ki mooy ministre de l' agriculture Samba Ndiobène Ka moom dem rencontré na daje na ak euh, yi pour def euh, examen de son de son de son budget notamment ministère de l' agriculture ñu ñëw rek si Petersen Petersen mu nekk mu ngi nekk dans la commune de Dakar donc Petersen démb dañoo yeewoo ci guddi vers une heure du matin ak benn incendie boo xamante ne seen incendie bu bu bu bu bu bu métti bu métti bi nga xamante ne képp ku ko gis di gis euh, vraiment euh, taal bi mu nekk loo xamante ne daal lu lu doy waar la. su bopp incendie boobu xamaguñu ko mais. Euh, dañ jàpp ne Petersen am na lakk-lakk bu metti boo xamante ne am na foofu démb ci guddi ñu ñëw si forum euh, de la paix et de la sécurité ki nga xamante ne mooy mooy président Macky Sall moo ko doon jiite démb ak tey fu nga moom mooy jam ñaado jëm donc dafa na rek si problème yi nga xamante ne Afrique mu ngi koy jànkonteel rawatina instabilité institutionnelle bi Macky Sall moom mu ngi woote à ce que vraiment ñu respecté instabilité institutionnelle ñu respecté institution yooyu euh, bàyyi coup d'état yi ak lépp lu nga xamante ne moom mooy am si Afrique donc mu ngi woote woote pour euh, mbootaay yi gën a dajaloo euh, dialogue pour Afrique mun a nekk si jàmm. ñu ñëw si parrainage bi parrainage bi euh, ñu ngi ne mm, dëgg bi léegi mu jot parce que candidat yu bari ñu ngi fësal seen parrain ñu ngi naan am nañu temps parrain am nañu na temps parrain. donc ki nga xamante ne moom mooy Amadou Ba moom moo ci mujj moom xam leen xam leen ne am na plus de 3 millions de parrains donc euh, mu annoncé ko donc annonce boobu mu def def tax na ba ñu bari di ko contesté est-ce que am na 3 mille 3 millions de parrains wala amagu ko donc loolu euh, xamaguñu mais daal moom déclaré na ne am na 3 millions de parrains mais nag ki nga xamante ne moom mooy euh, le CORED mooy organe boobu nga xamante ne moom mooy réguler les médias mu ngi alerter journalistes yi pour vraiment ñu bàyyi xel ci publication parrainage yooyu nga xamante ne candidat yi ñu ngi koy def le collègue nag mu ngi ñaax journaliste yi à ce que ñuy joxe information juste et vrai jàll si actualité internationale dañ koy commencé par euh, Togo Togo bi nga xamante ne euh, euh, moom comme yeneen pays yeneen dëkkandoo am yi comme le Burkina Faso moom mu ngi am ay attaques yoo xamante ne ay attaques jihadistes lañu donc si année 2023 bi lu toll nu si fanweer ak benn nit ñàkk nañ seen bakkan foofu si Togo si attaques yooyu nga xamante ne jihadistes yi def nañ ko si dëkk boobu suñu sukkandikoo si benn communiqué donc. ki nga xamante ne moom mooy ministre de la communication muy Yaya Kougan moom moo ak porte-parole moom moo ko xamle euh, voilà si foofu noonu si Togo. ñu des Afrique Afrique toujours si Afrique du Sud ñu ne am na euh, fukk ak benn doomu adama yu ñàkk seen bàkkan si min benn ascenseur boo xamante ne moom moo doon yóbbu ay ay euh, liggéeykat di leen wàccee si suuf di leen yéegal ci kaw donc euh, ascenseur boobu moo moo daanu def benn accident ba rëy ci ay euh, ay ay ay ay ay liggéeykat ah, ñu bëri ñàkk seen bakkan lu mot ci euh, fukk ak benn ñi nga xamante ne ñoom ñoo mujjee blessé ñoom dañ leen yóbbu hôpital. ñu ñëw si Nigéria lu toll si juróom fukki jihadis ñoom ñàkk nañ seen bakkan si benn explosion anti véhicule ah dans la région si région bi nga xamante ne moo nekk. Nigeria wala ak Tchad dans le Nigeria donc euh, nee nañu camion boobu ñaari camion la woon ñoom ay militants euh, de de l'état islamique donc ñoom ñoo def explosion ba euh, jihadiste yooyu ñàkk seen bakkan. ñu ñëw rek ci actualité sportive dañ koy commencer rek. kan 2024 ki nga xamante ne mooy ministre euh, des sports Lat Diop moom bu mu jàkkaarloo démb ak député yi moom xamal na leen ne dinañ installer ay fan zone euh, dans les 46 départements du Sénégal loolu nag dina permettre euh, fans yi ak ñu bëgg a seetaan football mun a regrouper wu mun a seetaan li nga xamante ne moom mooy match yi loolu la ministre de ministre du sport Lat xam le ñu ñëw rek si coupe du coupe coupe du monde u ki nga xamante ne moom mooy Mali moom jëlaat na place am donc ki nga xamante ne moom mooy capitaine Ibrahima Diarra nee na Mali euh, moom compte na déjà une euh, grande offensive de taille donc moom Mali bu mu doon jàkkaarloo ak France donc ki nga xamante ne moom mooy attaquant bi muy Ibrahima Diarra moom def na ay prouesses euh, ba entraîneur bi nga xamante ne mooy Ismaïla Cissé di ko xamle nee na ki nga xamante ne moom mooy. Ibrahima Diarra donc euh, def na ay prouesses yu baax a baax a baax donc moom dafa nekk mën na jeu boo xamante ne vraiment bu incontestable la foofu si équipe Mali ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ah, si dégg teewlu ba te di la ñaanal kenn la jàmm.